ñu war ci euh, waxtaane lu jëm ci programme Eiffage bi war a ñëw ci mois de novembre c'est pour bientôt waaye tam Ligue de Dakar tamit seen ay mbir fu ñu ci toll waaye itam fédération sénégalaise de football bi nga xam ne ñu ngi wàcc décembre soreetu lu jëm ci wàllu assemblée générale ak yu bari yu sew yu ne ci athlétisme manque d'infrastructure bi déficit bi ñu ci nemmeeku et tout mais ñu doore ko rek ak xew-xew bi mooy Eiffage euh, li ñu war a daw euh, le 21 le 22 mois de novembre foo leen ci tollu président donc euh, pour événement wu marathon Eiffage bi donc di fàttali rek ne bii mooy troisième édition bi donc organisé nañ ko en février 2016 organisé waat ko en avril 2019 donc euh, ñu ngi koy organisé waat en novembre 2021 donc muy troisième édition bi donc mu nekk marathon nag bu am solo fii ci Sénégal rawatina nag Dakar parce que boo ko xoolee ci ñaari vole bi ci njëkk mooy sur le plan international donc athlètes yu bëri yiy jógee ci bitim réew di dugg ci Sénégal donc mu nekk benn plus-value boo xam ne tey Sénégal euh, daf koy ndamoo daf koy récupérer ba pare da koy day yëkkati turu Sénégal ak turu Dakar ci bitim réew. parce que information yi fa muy egg donc avec la magie euh, du clic comme on euh, fañ koy na foo ngeen ko natt rek weesu na ko donc sur le plan touristique donc day am retombées yu yu yu énorme yu ci am sur le plan économique aussi la même chose parce que ñiy jël seen billet d'avion yi di di dugg dëkk ci hôtel yi ak yeneen ak yeneen donc loolu yépp lu bénéfique la pour euh, Sénégal beneen bi ci topp mooy sur plan national donc surtout avec euh, partenariat bi am diggante fédération sénégalaise d'athlétisme ak Eiffage mu nekk benn partenariat bu yàgg Euh, depuis presque trois éditions ñi ngi koy euh, euh, renouveler donc fas yéene naa dox ci noonu mu nekk nag lu baax pour fédération parce que dafa nekk benn événement bu mag boo xam ne dañ koy organiser biir Sénégal ndaw yi di ci participer boo xoolee diggante six ans ba presque quarante ans cinquante ans ku ci nekk am na ci benn plage bu ñu la ubbil boo xam ne soo bëggee participer mën nga participer moom mooy kids stadium bi nga xam ne de 3 à 10 ans lañ ko réserver nga xam ne xale yi tey ku bëgg a ñëw fo ci atelier yi ñu initier la ci li ñuy wax sport ci athlétisme en particulier mën nga ko def mm-hmm. donc xale yi ak seen famille boo ñëwee ànd ak say doom di nga ko mën a def beneen bi ci topp mooy randonnée pédestre bi bi ci nekk aussi nga xam ne tey même ku mënul daw am benn âge bu un avancé soo bëggee man nga dox donc amut âge soo inscrire rek euh, da nga kiy dem beneen bi ci topp mooy le 10 kilomètres bi nga xam ne moom la ñu réservé pour euh, athlètes yi am na bi si 21 kilomètres aussi ak 42 mm-hmm. kilomètres bi mooy les athlètes pratiquement internationaux ak ñi nga xam ne c'est des professionnels en la matière am entrainement yu baax ñoom leen ko réservé donc tey fu ci waay bëgg rek mën na ci gis boppam donc mu nekk benn genre euh, fête benn genre engouement boo xam ne da koy créer biir Dakar parce que ñëpp gis nañ dakaar ni mu xatee densité dakaar dafa foor dëkkuwaay yi xat donc def fi sport yombul donc am événement bu toll nii ñu def ko fii biir dakaar mu nekk le temps de week-end ñëpp bàyyi lépp li ñuy def di tàggat yaram même ci côté santé sax dafa baax donc ci côté environnement bi aussi bàyyiwuñ ko parce que am na yenn programme ñuy teg yoo xam ne dañuy sensibiliser accompagner donc programme yi envi yi le plan environnemental yi ñu teg donc fi ñu koy defee nag mooy ren arrivé bi xam nga daaw arrivé bi place de de la nation la woon. mais ren arrivé bi euh, fële la euh, Grand Théâtre la def arrivé bi ren donc loolu mooy nouveauté bi donc dañ ko déplacé donc les circuits def nañ ko en collaboration avec les techniciens de la fédération ak les techniciens de euh, World Athletics donc ex donc ñëw nañ fii donc euh, mesurer euh, yoon yi ñuy jaar yooyu yëpp vraiment calé nañ ko parce que pas plus tard que il y a dix jours de cela on a tenu un CRD donc avec le gouverneur de Dakar avec le préfet de Dakar mm-hmm. ak l'ensemble des composantes yi nga xam ni il tourne autour de la manifestation la ville de Dakar ak ñeneen ak ñeneen donc je pense que aujourd'hui kale nañ ko donc di lancer message rek tous les sénégalais de tout bord fu ñu mënti nekk képp ki nga xam ne sport intéressé na la nga ñëw ci manifestation yi parce que si nga bokk manifestation nationale boo xam ne pour Sénégal yépp la donc tey xale mag ndaw ku ci nekk am na ci foo mën a inscrire boo mën a tàggatoo pour dugg ci donc mm. inscription yi aussi mm-hmm. ñi ngi koy def ci euh, euh, supermarché Auchan yépp foo ci dem mën nga inscrire siège fédération sénégalaise d'athlétisme aussi mën nga fay inscrire donc inscription yi yomb na mettre nañ ko aussi en ligne ba nga xam ne même boo toogee sa kër su la neexee inscrire donc format yooyu yëpp teg nañ ko parce que bon c'est pas la première fois ñu koy organiser donc képp ku ci bëgg a bokk daal euh, ci yow la des. d'accord mën nañu am une idée ci compétition bi ndax am na euh, des étrangers yoo xam ne am nañ ay tour ci wàllu athlétisme ñoo joxe seen aval pour participer. ci ci marathon waaw côté boobu euh, entreprise bi ñuy wax Eiffage ñu ngi ciy dox bu baax mais boo xoolee tête d'affiche tout le temps day am si marathon boo xoolee premier kii bi Haile Gebrselassie euh, Selassie ñëwoon na beneen bi si topp en deux mille euh, dix-neuf y avait des Kenyans donc ouais. cette année aussi donc nous n'allons pas rompre avec euh, nos habitudes dina am tête d'affiche parce que tête d'affiche yooyu dafa am solo ci course yu toll nii parce que non seulement day créer benn émulation au sein des athlètes yi nga xam ne ñoo nekk fii Sénégal ñi nga xam ne dañ leen di yàgg gis ci marathon yu mag yi parce que boo demee si dëkk yu mag yi yëpp ay ay ay Dubaï Amsterdam ay euh, Rome foo Paris ñëpp dañoo am un grand événement au niveau de la mhm. capitale donc tête d'affiche yi bu ñu ñëwee dañuy ànd ak suñu athlètes Sénégal yi ak les athlètes de la sous-région parce que ñëppay ñëw ah sous-région bi ñëppay ñëw donc ñi créer benn genre émulation parce que ki ngay dégg tele bi di ko gis muy remporter marathon wala muy nangam wala mu nekk benn tête d'affiche boo xam ne tey bu ñëwee nga mën ko côtoyer jël ci moom technique de course wala sax mu booster la donc day créer benn engouement ak benn émulation au sein euh, de nos athlètes ba nga xam ne dañuy mën a jonganteeg yeneen athlètes yi nekk si yeneen réew au lieu ñoom ñi paas di dem dina fekk tey marathon bi moo leen indi donc tête d'affiche moom euh, dina am parce que loolu on en a discuté avec Eiffage euh, ils sont là-dessus. parce que c'est très important soxna Fall question boobule Baye San ndax euh, dañ daan gis ne ni bi ñuy gën a nekk xale athlétisme ki ñu ci gënoon a ràññee mooy Ami Mbacké Thiam je crois tey jii on a besoin justement de ces boosts la papa yaakaar naa ni yow itam am nga kàddu yoo xamante ni mën nga ñu ci dollil bu ko defee le sport pourra mieux se quelque part, moi je pense que c'est ils se sont délaissés. Euh, euh, merci Mathiam merci dama permettre ma wax ci seen discipline tuuti euh, l'athlétisme je crois que c'est le premier sport de tout sportif. C'est vrai. premier sport de tout sportif. parce que école ngay commencé di daw di kii ba pare maintenant nag ci ngay dem parce que le sport c'est un c'est un arbre à plusieurs branches. Mm-hmm. mais le tronc c'est de l'athlétisme. donc euh, euh, c'est dommage que aujourd'hui euh, euh, on salue hein, FH ce qu'il fait c'est très bien parce que vraiment il réveille l'athlétisme s'il y avait deux trois quatre cinq FH comme ça xëy na peut-être que l'athlétisme s'en porterait beaucoup mieux et je dis ceux qui sont autour du sport au Sénégal aujourd'hui le ministre le conseil du ministre et tout ça bien ni ñu yëngatu un peu pour booster un peu l'athlétisme parce que euh, aujourd'hui euh, le, le le le président de la République a créé des infrastructures je crois mhm. euh, euh, durant ces ces ces ces dix ans euh, cette décennie amul benn dëkk bu ko def mhm. donc fii lu ñu am ci infrastructure mais vraiment dañ koy bakko Euh, vraiment euh, euh, remercier le président Pastef mais mais il faut que ça soit utilisé Mhm. si c'est pas utilisé à quoi ça sert regardez l'arena là depuis bi ñu ko defee on a mis des milliards ça ne marche pas ça ne ça ne pas même bu fekkee da ngay dem di jouer foofu avec même dix personnes au moins tu fais vivre le tu fais vivre le ça parce que dañ koy ubbi aéré ko mhm. mais quand c'est toujours fermé c'est autre chose mhm. j'espère que l'arène de lutte à un moment c'était comme ça tëj nañ ko fi pendant des mois et des mois et des presque deux euh, euh, li may ragal mooy le stade de mu nekk la même chose qu'il y a des il y a, a des trucs aussi doit être boosté parce que il y a de l'espace aujourd'hui pour pour ça donc euh, man daal li may ñaan moom mooy le président Sarawali euh, mu créer euh, genre benn critérium tous les mois tous les deux mois ou tous les six mois Hein, même si c'est euh, à fond perdu. Mm -hmm. Parce qu'il y a des sponsors pour ça. Hein. Euh, FH et tout ça sont prêts à mettre de l'argent. C'est comme Auchan et autres, ils sont prêts à mettre de l'argent. Mais même si à fond perdu, nous gagnons ici à quoi nous Parce qu'en fait, Dao, c'est la santé. c'est c'est justement ça et Soxna Fall mos nañu fi indi benn ndaw boo xamante ni je pense qu'elle nous a tous tous marqué cette petite dafa bëgg athlétisme bi muy yëngu ba nga xam ne dafa toog di jooy naan moom bu sañoon euh, dina bokk ci les meilleurs et moi je pense que on a vraiment besoin de ces boosts là on a besoin de réinitier nos enfants au sport et l'athlète le faisait à l'école saut en hauteur saut en longueur daw bi ak yu yi ni mel parce que dañoo bàyyi UHU voilà dañ ko bàyyi c'est ça c'est ça sunu bàyyi xam nañ ko sa ah. à ñun lépp lu baaxoon si ñun dañ ko baax. Mm-hmm. Mm-hmm. ah ñun nag doy nañu waar. <laughs> voilà. non c'est vrai que c'est vrai que y a un problème ici. le sport y a problème. bon euh, xam nga Yaasu. Euh, ministère des sports géré wu ko. donc dafa am yeneen ministère bu si dugg mooy ministère de l' nationale parce que ça se pratiquait pratiquement à l' école mu am ay programme tey mais am na lu ko remplacer mooy li wax le sport scolaire donc actuellement ñi ngi en partenariat avec la fédération sénégalaise d'athlétisme ils organisent tous les mercredis même IAS sax mi ngi am ah, mais dafa amul ampleur bi mu amoon donc tout ça c'est des réflexions qu'il faut mener comme ni ko waxee président tout à l'heure qu'il donc pour intéresser les gens et puis jëm ko delloo fa mu nekkoon maintenant pour ça il a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu quand revient sur le problème des infrastructures bi ko à part deux régions amul beneen région bu amul stade donc toutes les régions sont dotées de stade sauf peut-être deux régions maintenant à Dakar muy Kédougou ak euh, Sédhiou mhm. maintenant à part Dakar si tu à Dakar il des programmes avec l'organisation des JOJ en perspective donc le stade du Sénégal en principe qu'on doit réceptionner vers le mois de février il y a aussi un, autre stade euh, dédié uniquement à l'athlétisme de 1500 places qui est aussi à jam Diamniadio il le stade de Léopold Sédar Senghor qui doit être entièrement réfectionné et le stade de Iba mhm. li ci président wax dafa am solo mooy il faut qu'on utilise les infrastructures c'est vrai. et pour utiliser ces <laughs> infrastructures là il faut des compétitions de grande nature et il faut aussi des moyens des moyens parce que jóge fii di dem stade ba jam ñaajo jëlaat ñëpp indiwaat leen jam ñaajo y' a pas population. donc boo fa demee di arène national wala fële ngeen kii il faut que les gens se donc c' yooyu yëpp c' est des c' est des xool nan la ñuy booster athlétisme bi. maintenant course sur route yi nga xam ne xale yi dañ leen di génnee ci mbedd mi ñi ñi ñi ñi ñi ñiy daw nit ñi di leen gis tey Sénégal dafa nekk benn dëkk boo xam ne en Afrique. et vous êtes des journalistes vous pouvez faire des investigations pour vérifier ce que je dafa nekk bokk ci dëkk yi nga xam ne ñoo jiitu ci organisation compétition en Afrique ñii ñu jege tuuti waxuma ñoo xam ne ñoo tolloo de ñii ñu jege c'est l'Afrique du Sud et le Maroc pour vérifier l'information parce que nous on organise des compétitions tous les week-ends aussi bien en athlétisme en athlétisme senior mais aussi en petite catégorie on a des un championnat mm. national en petite ce qui veut dire que tey tous les clubs du Sénégal on en a plus d'une centaine hein tous les clubs du Sénégal ont la petite catégorie mm. et ils organisent des compétitions régulièrement tous les week-ends et ils organisent des championnats régionaux à l'issue duquel dañuy organiser un championnat national pour les petites catégories mais aussi pour les juniors seniors ça veut dire que y a de l'animation woon voilà xale boobu xale yu ndaw yooyu tey ñun dañ leen di gis xam nañ leen moom malheureusement côté médiatisation bi aussi des na mais ñu mel ni ñoom soxna ak ñoom aana yéen a ngi ciy jàpp liggéey bu am solo mais chaque week-end je vous dis de janvier jusqu'à juillet on organise des compétitions tous les week-ends sur l'étendue du territoire am na benn question de voilà allez allez <laughs> est-ce que FH daf leen di accompagner toute l'année le ah. sport athlétisme. Ah. wala dafay ñëw rek lëkkaloog yéen ci benn événement bi. non est euh, Eiffage dañu def ak moom convention ci événement bi. ba nga xam ne suñu ko organiser ànd ceeg moom dañ ciy am ay retombées. aussi bien su le plan technique mais aussi sur le plan financier. loolu mu ñuy jox nag loolu moo ñuy accompagner année bi mais teewul à chaque fois que ñuy organiser un grand événement dañ koy solliciter il nous vient en appoint mais convention lañ am ak moom. ak benn partenariat boo xam ne chaque année événement bi dañ koy organiser mu am ay retombées yoo xam ne day dem ci fédération mais du tee comme li ma la wax tout à saa yu ñu amee un grand événement dañ leen di solliciter comme ni ñuy solliciter yeneen euh, kii yeneen structures yi yeneen kii sponsors yi ñu ñuy jàppale mais vraiment loolu baax loolu baax na mais xam naa ne bu ñu dollee mu gën a leen. <laughs> waaw waaw waaw dolli mu gënal leen. non man damay weesu Paasan li nga wax nii dëgg la mais damay weesu sax ci ay phase du ma yem ci ci entreprise boobu kese. mais dafa am yeneen entreprise yoo xam ne ñu ngi Sénégal. yu mel ni bëri nañ. bari nañ ñu mel noonu. ñoo xam ne tey kenn investiru ci sport bi ay benn ñaar nga doon dégg. te tuuti lañ cee def sax président man na ma témoigner xam na ne sponsor mooy li gën a jafe Sénégal. sponsor yëpp nee nañ ñoom tamit euh, ci dañuy for ci weewu bi dañuy daw fisc. waaw <laughs> ku leen woo ci publicité rek dañuy naan ah l'impôt mi ngi ñëw. est-ce loolu aussi moo leen découragé quand tu ah, euh, je crois il y a non, des mécanismes qui te permettent un peu de mettre dans les charges c'est-à-dire qui sont hors fisc hors taxe. loolu aussi am na am na am na am na am na mais il faut ñu xool quoi xam nga mm-hmm. euh, rubrique nomenclature DGID euh, dafa dafa xaw complexe mm-hmm. mais boo xoolee si biir ngay maye. Mhm. pour une école ou pour euh, une ko war a encadrer parce que ñoom dañu war a dugal seen loxo ci sport yu mel ne athlétisme parce que lu ñu ci mën a doon rek athlétisme sénégalais bokkoon na ci yi nga xam ne moo doon rayonné un peu partout. lu mel ne ay meeting gisatuñ ko fi. lu ko waral ñàkk moyen. xam nga le meeting de Dakar tey kuy kuy kuy xam na ko. Mhm. tey ñàkk nañ ko. mairie Dakar moo ñu daan jàppale depuis ces déboires depuis boobu ba léegi. xeex ci la meeting ci la meeting bi kii. maintenant nga xeex palma rek nga xeex nit. waaw ci politique. lor ko lor sa dëkk lor sa askan. donc yooyu aussi meeting de Dakar. Hmm. dafa nekk benn événement boo xam ne dafa amoon solo pour Sénégal. justement euh, depuis l' année dernière on est en train de. oui mais monsieur Thiam moi j'ai une question à vous poser c' euh, euh, dañ ci def lan moo xew. non tu veux préparer le tey suñu premier partenaire ci meeting bi mairie Dakar la woon. parce que c' est un événement qu'on organise à Dakar qu'on à Dakar donc dans ville de Dakar.